gën noo gàtt noo tawféexi sëriñ bi ya allahu ya xabiisu ya sal amri ya faayiqa alxalqi man bilkarim nafsi wa diini summa walad wa maskani laka wadiatun abad wa hakada dunyaaya ma oxraya drivan عن جملة من بيتعلق من أبناء الزمن وجملة الإخوان من أقارب ناجاك عبدك العظيم عبدك مرتجيا إلى المنى من عندك فاز الذين ذعدوا بالغير وباع من لم يذعدوا بدير وكرمت الأبرار بالنعيم وكبت الفجار في الجحيم ثق الذين تركوا العباد لنار من من لم يطع عبادا تغيب من أراد أن ينقد ما أبرمه من ضيفه لم يدما waaye jànkati xaside yi ñoo ci raw waaye nee na jànkati xaside yi ñoo ci raw kon nag am ngeen sas kon nag am nañ sas wu rëy na ñëpp dal na ñëpp dal toog toogin wu jekk nañ toog toogin wu jekk na ko sëriñ sàmba daan waxe na ko sëriñ Massamba daa waxee bu ma saa ànd ak ñooñee di jàngal sëriñ bi nee na bu ma saa ànd ak ñooñee daa jàngal sëriñ bi ñu toog toogin wu jekk nee na ñu toog toogin wu jekk di nag borom dina nag borom bu leen sikki xeeñee bu leen sikki xeeñee wala dënn bi riir di tari alxuraan wala dënn bi riir di tari alxuraan wala muy ubbi wala muy ubbi kees yi wala mu yóbbi kees yi. ñuy dégg teel teel ji. ñuy dégg teel teel ji. sëñ Masamba nañ gën a defaru. sëñ Masamba daa ni nan gën a defaru. ndax borom a ngi ñëw. ndax borom a ngi ñëw. noonee sëñ Masamba daa def nag. noonee sëriñ Masamba daa def nag. mooy nii. mooy nii. kookee. kookee. mooy kii mooy kii. nañ koy xoolee kookee. nañ koy xoolee kookee. bu ko defee la kookee daa defal ñooñee mu defal nu ko. bu ko defee la kookee daa defal ñooñee mu defal ko. li koy maye nag ami teggin. li koy maye nag mooy ami teggin. na ñëpp dal. na ñëpp dal. gis ko rek doy na. gis ko rek doy na. bu leen xoolee. bu leen xoolee. seen aaju yëpp faju. sun aaju yëpp faju. bu ko seen pësteef matee. bu ko seen pësteef matee. bu ko kenn jéem a jox loxo. bu ko kenn jéem a jox loxo. na ñëpp toog rek déglu ndigal. na ñëpp toog dal déglu ndigal. loolu la ñuy xasida مختاروني بلا مسير ولا اللعين للسواي مدبرا بما على سير يدوم دبرا ما توجه المكاره ليا باقنا باب سكري وهو ليا عن رديت وهو عن رادي بلا مكاره ولا أمرادي radda li xayri jaati seytaano man ta yebal ma mara walawtaano farra li xayri jaati lahiinu yasuuqu li xayrin almuhiinu haddiyati min alilaahi wannabi kulliyati safat wa safat nubi haddiyati min alilaahi wannabi kulliyati safat wa safat nubi توفيق هاد قاد والإلام خد بيالي ما لون بيم بدل لي اليوم برب الغيب آسني ممن خلو وقيب لا يتوجه لناوي متب عني مع مكاري وتعب سعادتي بخير ما وين كتبت وكوني العبد القديم قد زبت سكر لي ميسر العسير مختاروا لي بلا مسير dikkilantey gërëm di way ak sant soxna si ñëpp xam ñu naan soxna jaara soxna jaara bégal nga àddina wóor na yaanu jox say xibam jaara ma jaara jaaratullahi mooy turam wañu tànn jaamu yàlla ak liggéey ko may soxna jaara soxna baalik maam bu sombaa ñu ne jaara am nga tawfiix ku gëm fa bal tudde jaara turandoo jaara ajjanaay wàccu waayam koo mën a doon santal ci mbaax gi fi jaara bu sa baalee mënoon ci kër man ci jaamum fu mu jaar nit ña yéemu roy soxna jaara gëm na yàlla ak yonnen ba xam Seyxi Bamba xam na boppam ba far mu doon soxna jaara daana jëf daana waar jigéen ña ca kër ya daana jàng ak léegi ba doon soxna jaara xam-xamam wér na alquran xam na jaara lam ca daa bind cër la cay jaara xam-xamam wér na alquran xam na jaara lam ca bind cër la woon cay jaara am na sañ-sañ bu rëy ci buur bii di yàlla lum ko ñaan daal mu may ko ngir moo di jaara sayqi abdul ahad waxam jaaka yéeme nettilil ngir nu dolli waaru ci jaara nooni lislaam bañi fexeel sayqi bamba def ko ci kamb ngir tuxal doomi jaara nooni lislaam bañi fexeel sayqi bamba def ko ci kamb ngir tuqal doomi jaara nooni lislaam ba ñuy fexeel sayxi bamba def ko ci kamb ngir tuxal doomi jaara malaayika teew na ngir dañoo sopp bamba ne dañuy jiima dimbale doomi jaara maam safar fa teew ba génn fa xaadim naa ko sayxil xadim wéyal ma la jaara maam safar fa teew ba génn fa xaadim naa ko sayxil xadim wéyal man la jaara dinga am ndam lu rëy ba del si ci réew mi dekkalaat sunna rey bi daa doomi jaara di am ndam lu rëy ba si ci réew mi dekkalaat sunna rey bi daa doomi jaara ku fi am sayxi bamba am soxna jaara wara sax naan jaara ma yow soxna jaara may nu kattan ñu jox ko kay sayqi bamba may nu wërsëg ñu jox ko kay doomi jaara noo ngi yalwaan noo ngi sakkoo noo ngi tallal may nu daal man nga ko ndeyay soxna jaara fu fi waayi tollu neel amiin ngir mu baawaan ngir nu am ngir nu sëbbasant fi jaara fu fi waayi tollu neel amiin ngir mu baawaan ngir nu am ngir nu jëf ba sant fi jaar jërëjëf rabbuna jaraw la kibaari hakada cheyqina alqadim doomi jaara jile wax nag malaaka yëpp ko séere ba nga salloo fi aw nillahi ba dem ndar jall géej del si jàpp réew mi libéré jërëjëf ku dul yow bu dajee ak noon ba wan gabang du fa góore jërëjëf xaadimu rasuuli ku dul yow bu dajee ak noon ba wan gabang du fa góore kaafa ani man maa lahu kuf an aat bima li xayri saaxa kulla man jaat akramani bi qul huwa allaahu ahad rabbi wa lam yakun lahu kufan ahad ناجاني الله مكرم السماد تناجيا به كفاني الكماد وجعل الأكرم أنفع الكرم ودرري بخير رد لانصرم أسأله كونتي الخسيدة خارقة لعادة مفيدة yaayu yaa xayuumu salli bi salaam ala lasi jaa bi axsanil kalaam ala lasi jaa bi axsanil kalaam salli wa sallim wal taqabbal sal kalaam mun ala xaarisil xuruufi bimaa yafuuqu sanna min maxraafi li naasimil xuruufi xallidi rabaax يا من كفى أنس الخرور ونباح ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مكرم يا ناجاك عبدك الخديم صلاح مسلما على مسحسن الخلاب ناجاك عبدك الخديم صلاح مسلما على مسحسن الخلاب ناجاك عبدك الخديم ساسلا مسلما على مستحسن الخلا واغفر لوالدي يا ذا الرحمن ولو ما بربي من كرامة جمعت لي ما لم يكن ولا يكون لممكن يا من لو كن فيكون جمعت لي ما لم يكن ولا يكون لممكن يا من لو كن فيكون ملكتني أنت الملك والملك ما لم يكن لملك أو لملك سقيتني إلى جنان بمياه غيبك يا من غاد لي خيرايا سكرتني هند جميع جندك يا خير جار خدمك سندك سكرتني هند جميع جندك يا خير جار خدمك سندك إذا كتبت تزارس الباخي وسبعا ملائكة باخي lisaanu sukuriya wa zikri rafaxa lil arsi wal kurusi nooran waafaxa lubbi munawwarun bi nooril wahyi waxaadali xayra ulumil mooyi annaawu wala roodu wal bayaanu بها يانو هرب من كتابة المدوار وبحروف تتغنى الوار هرب من كتابة المدوار وبحروف تتغنى الوار هرب من كتابة المدوار وبحروف تتغنى الوار li jaadu woon ci noonu mooy buñ diggee ci barab bi bu mënta ñàkk noy noy képp la si war a def sees bañ na mayoon man bañ a noyyi desu noyyi te sëriñ Abdou Samad soññee na ci lu bëree bari waaye matadik doomu aadama rek moo nu jàpp na ko sëriñ bay waxoon te mat la bu sifaa rek noo ngi koy yeesal suñu sañ day bàkki jox la sàq waaye noo ngi tuub waxuma sax def mel ne defaale nañ ko njabootu sëñ Tuubaa gi ñoo ngi koy tuub de ndax Cheikh Abdou Samad miy toog ak sëriñ Amsatu miy toog de ñoom xam nañ xàq sëriñ bi te jox nañ ko ko ànd gi ñu ñoom nag ak nii nu doxee day mel ne dañ cee ànd noo lañ leen koy tuubal ak mat di rek la ak kër gu ëpp ak ñàkk xam waaye la jaadu woon mooy fii jataay bii daa waroon ni wéyëng sëñ Abdou Samad ak sëriñ Xamsatu mën nañ saafoonteeg yow nga duyal leen ba nu fees bu nu gestoo duyal nu ndax sëriñ bi kat ba muy dem ca moom ñi ko toppoon daneen toog leen ma dem te ñëw waaye bi ñëwee li wax mooy def ne nafa an wa biyee yan faxul wara ku am ku mel noonu nag war ngaa mën a noppalu ndax koo xam ne bu demee du yem ci njariñal boppam day tibb njariñam ëndaaleel sa te bu la bàyyi woon doo xam yoon wa baa boo demee doo am teggin man caa jot ku am ku mel noonu day la waroon ci yow mooy ne tekk te loolaay lii ni ko sëñ sama di kookaay kii ñooñaay ñii kon noo ngi tuub tey jéggulu di nuyoo di ziyaare te di la ndokkeel ci barab bu sell bu tedd bi ñu la fekk ak sa njaboot gi tedd yi ñu àndal di la xamal ne dikkaat nanu fas yéene ànd ak yow liggéey bii te am yéene defale la ko ni nga ko bëggee tey ñaan nga dimbalanu ban defe ko noonu ndax bokk na ci turu sëriñ bi buy dal muy dal ci noonu rek la desee waaye buñ ko defee ni mu ko bëggee rek li ñu bëgg lépp mu defal na ko moom ndax jàkku na jàkku na ko ndax juba naag boromam ci loolu noo ngi ñaan nag ci barkeb njabootam ku tedd gii foofu euh, sëriñ Abdou samat ak yittey sëriñ Amsatu Mbàkke ak bëgg gi bëgg xasida yi ak dox gim mu ciy dox noo ngi joggi ci loolu di ñaan di dagaan sëriñ bi mu gën laa wéral te gën la fa yàggal loolu yomb na suñu boroom lool maa ngi koy ñaan ci barke mbootum xasida yi di la siyaare bu baax di sant bu baax tey jéggulu jataay bi ni mu demee moo waral kàddu yu mënta sori ndax lu bëree bari waaye yow xam nga lépp Mbàkke jërëjëf si am sama noo ngi tub tey jéggulu arkalla mun de daanaka ndegam gis nañ la nga gis na rek <laughs> nee ko ndegam ndegam ñun ñëpp jàkkaarloo nañu ak moom sëñ nee na ndegam ñëpp jàkkaarloo nañu ak moom mu xool nu bëti yërmandeem yii. mu xool nu bëti yërmandeem yii. amatul lu ñuy bëgg. amatul lu ñuy bëgg. amatul lu ñuy wax. amatul it lu ñuy wax. day mel ne almuriidu kal mayiti bayna yaday xaasilihi. day mel ne almuriidu kal mayiti bayna yaday xaasilihi. mooy ab murid daa war a mel ne néew. nee na almurid ab murid dafa war a mel ne am néew. du ne nañ ma wëlbatee nii. du nañ ma wëlbatee nii. du nañ ma sànge nii. du ñu nañ ma sànge nii. ñun ñëpp ay néew lañ. ñun ñëpp ay néew lañ. nañ yem ci loxoy sëñ Touba. kon nañ yem ci loxoy borom Touba. bàyyee ko suñu bopp. bàyyee ko suñu bopp. moo xam li gën ci nun moo xam li gën ci nun moo am li gën ci nun moo am li gën ci nun mu defal nu li ñu gënal te gën ci nun mu defal nu li ñu gënal te gën ci nun sëriñ bi xam nga nu sëriñ bi xam nga nu xam nga suñuy xol amatuñu lu ñuy wax noo ngi suñ lépp a ngi suñ ñëpp a ngi suñ fépp a ngi sëñ bi nee na jërë jërëjëf sëñ bi nee na jërëjëf Mbacke dégg nañu kàddu yi bu baax dégg nañu kàddu yi bu baax alhamdulilahi. amaat na ci bu yees peq. na ci bind bu yees peq. yi ma ko waxee rek. ci noonu yi ma ko rek. suñu digg ak sëriñ bi. suñu digg ak sëriñ bi. noonu yi dong la demee. kon suñu kem kattan. kon suñu kem kattan. nañuy jéem. nañuy jéem. nañuy ko nekkal. di ko nekkal. wax lépp. nee na sëñ Abdou Samad wax na lépp. ne néew ci nañu nañ doon ay néew fi moom rek. da daanu dolliku. daanu dolliku. daanu noppalu. daanu noppalu it. daanu dund dund gu sell. daanu dund dund sell. am xel mu dal retiix. am xel mu dal retiix. di di di di gën a di gën a di gën a di suñu bopp. di gën a xeeb suñu bopp. ci ci ci ci ni ñuy wute sëriñ bi. ci ni ñuy wute sëriñ bi. noonu rek la. nee na noonu yi rek la. gën a góorgóorlu bu baax. gën a góorgóorlu rek bu baax. nekkal ko rek incha allah. ñu nekkal ko rek incha allah. suñu kem kàttan. sunu xel dal na bu baax. nee na sunu xel dal na bu baax. sëñ yi njëkkoon a waxee rek doy na. nee nii ko sëñ Aliou njëkkoon a waxee doy na sëkk. sëñ Hamza mii ak sëñ Abdou Samad mii. na sëñ Hamza mii ak sëñ Abdou Samad mii. yàlla boole na fi toog fi sëñ bi ñu bokk yàlla boole ñu toog fi ko sëñ bi na sëkk. nee na loolu doy na sëkk. yaakaar. nee am na yaakaar. doy na yaakaar doy na yaakaar. doy na xel mu dalit. doy na it soññu. doy na it soññu. soññu suñ bopp bu baax. soññu suñ bopp bu baax. noonu yi rek la. nee noonu yi rek la. def sëñ bi muy suñ lépp. def sëñ bi muy suñ lépp. muy dund. rek la. nee na lool yi rek la. buñ ko defee rek. nee na buñ ko defee rek. danañ am danañ am danañ am taxeeg tey ak ëllëg. am taxeeg tey ak tey ak rek la ñuy jural. kon nag alhamdulilah. loolu lañ ci mën a yem. nee na foofu yi rek lañ ci mën a yem. toor kàlla Mbàkke toor kàlla. jërëjëf. waaye sori na lool. nee na waaye sori na lool. jotaay bi yóbbu nañ fu soree sori. na yóbbuwaat yóbbuwaat nañ fu sori. fu dal sama xel. nee na fu dal kon jërë ngeen nee seen sababas teew fii mi ngi sababoo ci sëñ Hamza mii ak sëñ Abdou Samad mii. nee sant leen yàlla bu baax. ngeen xam ne. nee na boo yóbboo ngeen xam ni. yoon wii ngeen am. yoon wii ñu am. ajjana rek la jëm. ajjana rek la jëm. alhamdulilah. alhamdulilah. ñun gars yi yàlla yi dañuy ñoom dañuy wax ne sax àjjana taxu leen a jóg. nee na gars yi yàlla yi dañuy wax ni àjjana sax taxu leen a jóg. kon nag. kon nag. sëñ Xamsa mii. sëñ Abdou Samad mii. ñoom ñoom ji romb nañu. nee dañuy jàpp ni ñoom romb nañu. àjjana taxu leen a jóg. àjjana taxu leen a jóg. ridwanullahi rek moo leen tax a jóg. te fàggul nañ leen ko itam. te it moom rek koy may. moom rek koy may. loolu rek mooy may ridwaanullaahi. alhamdulilah kon nañ sant rek. nee na mënu si wax. mënu si wax lépp. jërëjëf tàllal leen. may Samad nee na. dafa am lu muy ñaan. taalibe yëpp dafa am baat buñ koy ñaanal. daa am luñ bëgg ci yow. daa am luñ bëgg ci yow. te mën mënaluñ ko seen bopp. te mën mënaluñ ko seen bopp. te mënuñu koo ñàkk. te mënuñu koo ñàkk. mooy nga yàgg fi mooy nga yàgg fi. yow mi nga xam ne nag. yow mi nga xam ni nag. ki nga fi nekkal. ki nga fi nekkal. mësta tooñ boromam. mësta tooñ boromam. mësta tooñ moromam. mësta tooñ moromam. te lu mu bëgg ci boromam am ko. te lu mu bëgg ci boromam am ko. te juboo nga ak moom. te juboo nga ak moom. gërëm na la. te gërëm na la. benn baat rek lañ lay ñaan. benn baat rek lañ lay naan. nga ñaana ñu sëriñ bi. nga ñu sëriñ bi. sa jëmm ji yàgg fi lool. sa jëmm bi yàgg sa jëmm ji yàgg fi lool. ba li ko bëgg liggéey lépp nga def ko. loolu ñun nga ko defal. sëriñ bi neel nang fi yàgg rek. ñu dégg ko waxal nu lool rek waxal loolu di Mbàkke yàgg fi rek ku neen sëñ Muntaxa na fi yàgg dimbali leen rek wax Mbàkke boo ko waxee ne sëñ Tuubaa defal dimbali leen nga sëñ Tuubaa rek ñaan loolu ñaar gi ñaar ci lam bi ñu ci xol bi dama day sëkk wallaay Mbàkke yàgg fi yàgg fi rek yàgg fi rek Mbàkke yàgg fi rek yàgg fi rek amoon njëriñ mu jëpp gim jóg ci yéen ji ak sa fëste bi jaar ci lam bi loolu dama day sëkk alhamdulilah jërëjëf baax na baax na baax na jërëjëf سيرنا إبليس وهو انزرفا هدمت باطلا بحق فذهب ولإلهي قصص سيدا ملكت ربي مالكي كليتي حالي لك عملي ونيتي ردت بالله وبرسوله من قاله الحق ونرسوله بران الإله من شرك ومن كل نفاق وسعادة دم براني من غيب نفسي بالنبي صلى عليه بسلام مذنبي هو الذي لم أرى غيره ولا أراه في زين هدى ونورا محمد صلى عليه بسلام